li ci tege nak kon 5e diwan ci la jëm ah kadi Diouf yaangi sori ah amna ñent diwan diwaan ñu ngi jëm ci juróomeel bi num tuddu mom shifaul asqam asxam bi ana safara xayri anam saafara asxaam sifaawul asxaam bi anam safara febari ci luñ koy faje tag ki nga ci fi day safara yaram mo tax kon deug deug yalla nga li la wax ne kon taggu tagu wu day wone ne ki dal borom téré bi moy si askam deug deug téré qadi Khady euh, qadi juf la ci passam la ngeen ne 96 ci téré yu bees yi rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi haqqa qadri wa miqdar azim li tax moom lay moom mu dikkee ci xaala ali haq qadri miqdaar asim salaatul faati dafay dox par étape temps bii nag mi ngi daw alihi haq qadri miqdaar asim ci la toll fi ñu toll xarful am sa tag ma bàyyi de dégg nga de xarful am sati Euh, xam nga xam heure heure dafa baax lii mooy xam heure heure heure bi ban temps lay nekk xarful amsati xarfu amsa ci la bàyyi commencé euh, li nga xam ne mooy diwaan bi abaliya sirun xalla bayna xasaa i tanaasi abibillahi xayni safa i cay waay abalankara li ñel ma lan moo lànk sirun ab secret fan la bi nekk xal la moo wàcc bay na xasaay sama diggante deri bi yii secret bi nekk ci diggante bii su ma bëgg a nelaw moo koy moo dama coj dama dama as asaan tax na moo ma tere tanaasi habibi may fàtt sopp yàlla ba xay ni safaak xam ne mooy jëmi bi nekk fii moo tax bu bëgg a nelaw mu ne hee hee hee jógal xanaa da ngaa fàtt sa waajur tax na mën maa fàtt waajur ayo bi ishaama xayri bi say nabin wa taskaaroo hendi ala su xisaa yi ay mu gëlëm naa bii ci habibulaay bi sopp yàlla bi kañ ishaama bu gëlëmee xayri korom bi say nabin ci jonga bi jox say nabu wa taskaaroo fàttaliku yonent bi hendi fi man alasu moo gën a saf xisaawoo alasu xisaa moo gën a lekk yi lekk yëpp ba ci gën a saf ci man dëgg-dëgg bëgg yonent bi fàttali ko yonent bi moo ma dàqal lekk ayo bi mayestu doona taqannu jin a wali fii bu ayda ayimu dinaa gëlëm bii ci yonent bi mayestu fii ak maa ngi dund man maa ngi maa ngi ci rek doona tëqadi ñun te duma ci tiitaru nag xam nga tiitaru mel na man damaa man maay déet man du ci tiitaru mooy dewanewu wali am naa wala fii bi maanaa wali wala hoo dégg nga xam nga wali wala hun la daf ko yàqoon wali wala hun fii waa ji dafa bàyyi woon benn kii bi dafa def ngeen wala wala wala wala hu nga defe wala hun la war a nekk nag wali am naa wala hun nete koy wala hun mooy buñ ne diw dafa am wala diw yow yaa yow yaa ëppal ci kii ni nga ko bëggee yow ni nga nobee sa jëkkër ji wala yow ni nga nobee sa jabar ji wala yooyu mooy wala seetal wax ji wax ji benn benn masque bi rek xawoon naa yàq wax ji wali am naa man Ibrahima Niass wolewul ñàkk a dal fii ci yonent boy di fanaay gannaaw moo fanawo xàgg naa ci nag man dama dem nak and maa moom sama sago ci mom am naa ak ñak sago ci mom mooy wolof ma ñu ngi ko firi nette koy yow ya nete koy ha ah? lan wolewul hmm? dedet ñaari maska wa la hun ñaari maska la waa la hun wala yi am naa wala hun ak nga ta koy fii coom booy def fanaay gannaaw bu ma jeexee moo tax ah, li ah waaw ñaari masque lay doon <laughs> mooy wala hun mooy deux masques deux masques yu ma lonk moo tax bu njëkk ba boo ko xooliw rek da ngay euh, doo ko seetlu nga déglu ko arab dëgg-dëgg mooy nga mu nga xam ne wali wala woo bootu nga ko fekk nag bindkat bi loolu la bindoon wala lii wala hoo waaye wala hun la man damaa am ak fifi damaa fifi fifi yow yaa fifi yow yaa ëppal yow yaa cokkal xam nga cokkal loolu yëpp baati wolof cokkal mooy ko bëgg nit ba ànd toog sa ko yow yaa cokkal ah yow yaa nete koy nete koy mooy ànd ak sa ko ah, kon nag mën laa am ci bi de isa sarafan waarona a ndef no ƴusati baqitu bi aya li yawmi liqaay isa sarafa bu tourné al waarona ñey rob an def no ƴusati denc sama og yi jusatu mooy og yi taa yuñ gasee bàmmeel bi ba suul ma ca og ya sama og ci biir ñibbi man de bàqaytu damay des bii ca bàmmeel ba ayaa de dundoo li yombi li xaa ba ca bisa pay ba kon nag fa gaa yi foog na fa lay sul bàyyi ak fa bàyyi sulu bokk fële moom mbubb moo lañ sulli def fa ñu ne fii fii da waaye nag moom dëgg dëgg dëgg ma nga def nag ci yaa xamante ni mooy kaa xamante ni ah ma nga nekk ca fa ba ba baqaaw c'est-à-dire baqay baqaaw ca da ma nga ca pays baqaaw ca pays baqaaw ah? ah kullu man fala xale fara yàqaawacu man maa ngi ca pays baqaaw rek ba ci bisab day jëm isa abadal ubaadu fil xabri indi nii bi sëkkri rasul lay waxtu sawaw tawaw isa abada bu jaamu al abadu jaamu kare fil xabri ci bàmmeel nit ñi buñ dikkee ci bàmmeel bay ñaan ina nii man de man Ibrahima Niass maa ngi nekk bi sikki rasul lay di tudd ndaw laaw la waxtu tawaa bi nga xamante ni ñoom ña nga toog ca bàmmeel ba buñ dikkee toog ña ngay tudd naan neeg naa waaye man de maa ngi sama waa ko bàkk rek ah anistu ah aywa isalaam bisimilah damay anistu bi wala nga ñëwoon anistu bi wax di kafaani jamaan ko ah, xanil xaaniyaati bii di waxtu xibaay ma daane fii rek pare naa maa ngi taxaw fi maa ngi taxaw fi maa ngi taxaw fi waaw ah anitu ko naa bii ci moom wax ji man dong dong dong kafaani doy na ma jamaaloo taarim hanil qaaniyaat yi walis jongama yu rafet yi albidu yu weex wax sa xibaar yi nekk seen digg tànt man daal yonent bi ay fàttaliku lay wéttaliku fàtte naa jongama yoo xam ne ñu rafet wex tàll nekk seen diggante euh, tante isaa jamool am waala waftaqro biha fa faqri wa maali xubu sëy nii malaay isaa jamoo buñ dajale ñoom nit ñi al am waala ay alal waftaqro ñuy titoro bi ci moom man am naa milliard man am naa ay milliard am naa nangam nangam man de fa faqri sama titar wa ak sama alal lenn dong la moy lan bu sey ni malaayka xam ne mooy bëgg ki xane moy taru taaru mom dong bëggam gi rek moy sama tërma ibrahim yesu isa makro makran ku fi tubi sikri wa in maradun yaaro fa fi sifaay isa makro buñ palaxee makran pla bu ñaaw ku fi tu fekkal ma bi sikri tuddoo man ñom buñ lé plan bëgg dal sama kaw man te turam lay défense man woyin maradun dem feebar yaaroo def maa gaar su dee man damaa toog xay feebar fa fii ci moom la nekk si waaye sama saabara man sama ordonnance ci moom la nekk moom yonent bi sala sallam alayhi salaatu laahi sama salaam o li yur di a rasulullahi kulla sanaayi xaala yéen nekk ñoom salaatu laahi sama salaam o li yur di pour content rasulullahi ndama laaw li kulla sanaayi képp koo xam ne samay tagg rek yàlla na ma yàlla dafa salaatu salaam boo xam ne day tax sama tagg yépp ah kontaan na ci alayhi salatu salatullahi suma salam ho akono bi asri tata sililla lawai yalla yalla salatu salam mom salatu wasalam o kam ne dina nek bi asri ci sama pëng ma yowmal qiyam bu ñuy dekkal ni ci ma nek salatu wasalam ba dafay may ma nek tata sililla waaye caroon keru drapeau am yàlla ma yalla yalla ñu ko yalla defal salatu wasalam boo xamante ni moo ñuy permettre ñu taxaw bu yowmal qiyaama ci ron drapeau wu keru drapeau am yar bal alamin alayhi salaatu suma salaam woo anaalu la daal oxra kamala di daaw na yàlla def salaatu salaam su ma woo xamen su ma ko mayee anaalu dinaa amee la daal oxra fa alaaxira kamala daa mata ngërmaande yàlla bu keroogee na ma def ak salaatu salaam boo xam ne boo amee may ñu loolu alayhi salaatu suma salaam woo ah woo yëg ci rasulullahi ahla basaay yàlla na ko yàlla dafa salaatu wasalaam boo xamante ni woo yëg fii dana fekk rasulullahi ndaw lawli ahlal basaay ñi xam ne ñooy borom caay-caay saay-saay yàlla na yàlla defal ma salaatu wasalaam boo xam ne defal ñu salaatu wasalaam boo xamante ni dañuy fegal ñi nga xam ne mooy saay-saay yu bëgg a saay-saayee alayhi salaatu laay salaam ko yunaalu muy biir dahara kulla mana cey xaali yal nekk soom salaatu laay suma salaam salaatu wasalaam boo xam ne boo ma ko defalee yan a lay amee muy bi ñi ma bëgg man Ibrahima Niass addaara fekk àdduna fekk àdduna ngi daw ñi ma bëgg dañu am lu ñu am kul mun naa lépp lu seen ba aay waaye amin yàlla balaa ni yàlla nag ma defal salaat soo xam ne ku bëgg rek li nga mébët da koy am alayhi salaatu yàlloo kulla ahli alaay xaale yàlla nekk ci am salaatu salaamu xadimu ko ku lay liggéeyal yàlloo mooy féete kaw kulla alixala képp kuy ne kawe nga rek te yow doo surga yonent bi man surga yonent bi moo lay kaw alayhi salaatullahi suma salaamoo wa anwaaruha taaloo xanaana samaayi yal salaatu salaam nekk ci moom wa anwaaruha leeru salaatu ga taaloo mu kawee xanaana samaayi ci kaw asamaan amin ya rabbil alamin alayhi salaatullahi suma salaamoo wa alin wa sabin suma ali abayi yal salaatu salaam nekk ci moom ak àllub ak sahbo suma alé iba ñi nga xam ne ñooy borom mbàjj ma mi maanaam mooy ñoom la waroon ca mbàjj ma ne ñu ñooy suma alu bayti yi yal na salaatu salaam nekk loo am ya rabbal alamin xarfu bàyyi lan la bàyyi waxaat baritu min al israak wa saki wal ujbi bii bu rasulaay fil bu'di wal qutbi baritu seet naa wécc wécc wécc man Ibrahima Niass min al israak lépp luy bokkaale laal man Ibrahima Niass wërsëg ki walla sikk laalu man Ibrahima Niass wala oju bëgg ku ma yéem laalu man Ibrahima Niass ñett yii set naa ci wecc wecc waaw bàyyi foo amee lii maa ngi ko amee bi hubbi rasulullah ci bëgg ndaw bëgg ndawal laahu li fil boo di bu ma soree ci laa nekk wal xut bu ma jege ci laa nekk lii de ci laa sete man waay waay tay lii kon nañ fexe xam nañ bàyyi indi mooy yoon wi salimtu min al axraadi axlastu wisati li rabbi wa anni sala xayniya mahuji salimtu mucc naa man Ibrahima Niass minal axraadi ci xaajo yi xam nga luy xaradu mooy ngay def dara da jaamu yàlla fekk bëggaale ci dara dikk de la ndikk ne maa ngi lay teral ni ko tey ku lay gan ku gane si ndax bëgg lu mu am mu indi la mburum gan xam nga wala joxe ku la jël mburum gan jox la dafa am lu mu bëggaale moom nag moom mooy xaradu man nag man mucc naa ci aaju axlastu ah, seetal naa wiisatu sama jublu bi dama laa jubli ci jublu gu set gu set wecc lire bii ñeel sama borom moom laa jublu gu set wecc kon nag wasaala dañ na xanii ci man Ibrahima ñaan xëy nii sama tombab xëyin ba maalu uj bi ànd ak ku ma yéem maanaam maalu uj ba ànd ak ko kiiraay kiiraay man de xëy na kiiraay ah bi xuj bi la xujj bi mooy xujj bu ji firi kiiraay xujj bi xujj bi kiiraay loo ko bind waaw xëy nii xëy la xëy xëy la xarafu da ko yàq xëy nii xarafu xëyin bi waaw da ko yàq man sama xëyin gi dañ nag mooy sama tomb xam nga xëyin boo ko dee mu nekk ayin lay doon waaye xayin bu ñu ci tombee muy xëyin mooy nag mooy kon man sama tomb bi dañ na xànd kiiraay yëpp dañ nañ wa andahu xayru xayru xalqi xayra xalqi xaadima baabi yi wa yaskuruhu ruuhi wa sirri kazaqal maa ngi tagg man Ibrahima Niass ma bàyyi koy tagg maa ngi tagg xayra xalqi xayra xalqi kan mooy xaadima yow kan xaadima baabi mbir ma man na nekk maay bëkk nekku buntam bi man maay jëwrinu buntam bi wa yaskuruhu dina ko tudd ruuhi sama ruux xamaa ruux nag lu moo ko وسيري سما سيرو كاسا اقل بسما قل سما نيتي دغ سما روغان كو تودو سما سيرون كو تودو سما قلون كو تودو مان ابراهيم لا اله الا الله من لي كان مستون كو ا كفاني كروبي سائر الباب قادما بقيمه خير الخلق فارقني هيبي كفاني فقل نما معنى كفاني دوينما لان كوني نيكي ما نيك saayira baab yi may gawlo bunt ba xaadi man ma nekk di bëkk néegam man loolu ñu ne Ibrahima Niass mooy gawlo yonent bi mooy jëwrinam rek man doy na ma sëkk man Ibrahima Niass ñu ne ah bàyyi lu tax mu ne bi xidmati xayri xalqi ci liggéeyal ki ak na may xayri xalqi faaraxan yi la teqaloo ayib yi sama ayib yëpp ndax boo koy liggéeyal ayib la ñam du ayib du moo jige si kon nag ci laa ko amee man ci laa texale ko lépp lu ayib fa kaabun wa asaanun unila karamatan bi mataka yaa mamono fil jari wal kay fa kaab kaabun kaab ibnu soyin may lañ ñaar karamatan teraanga fu ñu ko amee bi mataka takk takk yaa mamoon kuñ wóolu ki fil jari ci biir biti wal bi ak biir ñoom am nañ teraangay biti ak biir tedd na ci àdduna tedd àllaaxira wa inni man ibrahima wa inni fi hasil jahalati wal xawaa la maa di fi xaalati basti wal kër inni man ibrahima ñes fi hasil jahalati man ci jamono waxal jamono jaahil la wal xawaa ak jamono waxal jamono ci laa nekk de waaye nag la maa di kuy tagg yonent bi li jamono yi mitti mitti mitti mitti kuy tagg yonent bi fi xaalati basti mi ngi nekk ci jamono boo xam ne jamono yi bastu mooy fireeku walkar bi njàqaree ñaari moom ku koy tagg luy jamono yàgg-yàgg danga nekk diggante ci jaaxle maanaam yaatare ak ci tàng ah, kon nag yufariju anni kulla karbin wa ansani biha bi jaisatin an haddiha yan sani lubbi yufariju dina teggi dindi ani ci man lan kulla karbin lépp lu njàqare da koy dund ci man Ibrahima Niass wa an sa nii dinaa ñibbi dellu bi jaay seen ànd ak cadeau bi maanaa diplôme ah may yoo xam ne cadeau yoo xam ne may goo xamante ni ah yéen sa nii day dëppoo lu bi sama xel xan hadiha ba mën a ko kont man nag may naa may yoo xam ne sama xol su ma ko doon su ma ko doon jàpp ci xel da ko jàpp da ko da ko jàpp damay ya dem ba mu yàgg duma xam ñaata la ma may man suma salaam woo salaatan turaqina ila sikri wal ubbi xaal yéen rek ñoom salaatu suma salaam woo salaatu salaatu boo xam ne bu ma ko defalee turaqina daf ñooy yéegee ila sikri ñu gën leen ak mbëggeel amin yaa rabbal alamin yàlla ñu ko yàlla defal salaam woo wa yuskuruni al muxtaaro yaa xaadimi eh, Eh, dengan Hindi. xaalis yàlla nekk comme salaatu laay wa salaam moom salaatu salaam boo xam ne moo ko defalee woyees kur nii dana ma tudd al moxtaar moxtaar ne ma yaa xaadimi ana sama kat bi ana sama jëwriñ ji hibbi sama soppi ana sama ana sama jëwriñ bi ana sama soppi bi salaatu ak salaam boo xam ne mu loolu la may may ñu may ooyee xaadimu rasulaay dama dama tudd abi abi abibulaay yàlla nañu yàlla defal salaatu boo xam ne loolu la ñu may c'est-à-dire salaatu salaam mooy may lépp kat alayhi salaatulahi suma salaam o yu tahiro ali suma nasli tasatur bi yàlla na yàlla salaatu salaat suma boo xamante ni yu tahiru dafay laabal aali sama njaboot suma nasli maanaam suma gaaya suma nasli topp suma ngirte kasaana ko tur suma suuf si nga xam ne mooy mbir la gii ak wala bokk Sénégal yëpp yàlla na defal salaatu salaam boo xamante ni daf koy laabal amin alayhi salaatu laay suma salaamu wa yuskuru sa yi wal muhayminu liy jur bi yàlla na def salaatu wa salaam ci moom wa yuskuru ànd mu mu sant sa yi sama jëf wal muhayminu ki nga xam ne moo sëb biir lii ñu ne yor bii moom ay gën a avancé ah kon pare naa pare naa pare naa jeexal na jeexal na ah pare naa jeexal na ñetti wéy rek moo ci def alayhi salaatu laay suma eh, eh, salaamu salaatan biha nabqa maal yumni wal qasb yàlla na ko yàlla defal salaatu wasalaam moom yonent bi salaatu wasalaam bokk na bihaa ca salaat ba nabqa la ñuy des maal yumni ànd ak barke wal qasb bi ak ak naataange amin yaa rabbal alamin yàlla na yàlla defal ñu salaatu wasalaam bokk na bu ñu ko defee ci yonent bi dañuy yàlla day barkeel suñu mbir dañuy andi naataange amin alayhi salaatu laay suma salaamuhu min al abdi ibrahima li naasiri rabbi yàlla na yàlla def salaatu wasalaam bokk na min abdi may ka jàmbi ibrahima ibrahima li naasir rabbi nga xam ne mooy dimbali ko borom bi alayhi salaatu lahi suma salaam o maal ahli wal awlaadi wal ali wa sabi yàlla na def salaatu boo xam ne daf ci boole njaboot ga ak doom ya ak àndo yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aywa